samedi ñetti fan ci noo novembre ci atum 2022 ñu ngi fii ci jataay bi nga xamante ne handicapé yi dañ ko amal ci Touba ni ko seen nawle yëpp di amal ci réewum Sénégal maire Abdou Lahad Ka yebal fi délégation bu takk lool mooxloo jiite ko feggoog Basirou Diagne ak Modou Sall gi ñu essayé nag ñu teewlu kàddu yi bàyyi ko ci mooxloo te maire Abdou Lahad Ka yebal ko boole kook amuloo bu takku ngir jàppale ko ñi nga xamante ne ñoo di handicapé yi nekk fii ci Touba. monsieur ma leen di jottali ay ngërëmam ay santam ci seen taxawaay ci nii ngeen taxawe ca sëñ Moustapha mii rek di fierté pour ñett lii mu wax léegi bi mu koy wax ñun ñi ànd ñu ci bari boo demoon ci seen xool seen rongoñ mu ngi mu ngi tuur kon yéen ngeen jàpp ne ñépp seen biir lañ nekk ñëpp seen biir association lañ bokk kon loolu bu ngeen amee bis boo xam ne da ngeen di dajaloo di waxtaane seen nekkee kenn waru ci jiitu meenoon ma leen koy wax ci turam ak ñi ma àndal ne suñ delluwaatee lii ngeen sàkk pour toog ak moom danañ ko ko wax ngeen ñëw ñu waxtaan ndax ci yëf yi ngeen bokk kenn jiituwu leen ci aussi fële ca commune ba nag moom bi mu ñëwee ba léegi xam na ne ci yëf yi ngeen bokk looloo tax boo demee ca état civil ba danga fa gis ay agent yoo xam ne seen kuréel gii ñoom ñoo waroon a ñëw toog fii bi ma ñëwee waroon naa leen fekk ngeen xam leen ñu xam leen ñun ñëpp waaye looloo tim lépp luñ ci defati la la jiitu waxtaanoo nañ ci ba am na ñoo xam ne yéen ñu ko jox mais lépp luñ ciy defati aussi danañ ko toog ak yéen waxtaane ko seen nekkin ci dëkk bi aussi ñëpp ñoo leen war a jàppale ca mairie beetim am na ay programme social mën naa ne bi ñu jubee Euh, tabaski bi def nañ opération boo xam ne ñu bari dimbale lañu leen te loolu aussi dañ leen a boole woon ak euh, Cissé mi nga xam ne mooy CPRS defe naa ñun ci dugal ñu ci bari woon nañ leen foofu looloo fas yéene nañ yéena ne waa bi may wax ñu bare ngi naan waaw waaw waaw waaw danañ ko renforcer danañ ko renforcé loolu la ñu maire abdoul ahad ka wax ginnaaw kàddu yooyu ñu teewlu kàddu yu bàyyi ko ci moussafa thiam meilleur kàddu seen kàddu te muy kàddu yu am solo yu jëm ci maire bu touba kontaan nañu trop ndax lii lii daf ñuy sigil daf ñuy sagal personne handicapé yi am journée bu mel nii ñu ni monsieur le maire yabal na ndaw bu ci yamoon foofu sax ñu neex parce que xaalis solo si am na solo waaye solo si bëriwut mais jëm yi ñoo ëpp dañu bëgg diggante autorité yi ak kilifa diine yi ak personne handicapée yi ñuy bokk jataay di jege tey soxna Maguette Diop yabal na fi ay ndaw depuis ci suba wax dëgg yàlla taxawaay bi monsieur le maire taxaw ñoom it taxaw nañ ko ndax ñëw nañ fi sànq ak cent mille francs waaw ñëw nañ fi ak vaccination coronavirus vacciné nañ fi ay doomu aadama yu bëre te loolu lu am solo la. ñoo yooyu nag soxna Abi Kane mi nga xamante ne ci kanam jigéen ñi am pëseef jàmbaare lool taxawaayam rafet lool ñu ràññeekoo ci waxtu wu nag yittee handicapé yi yéet na ay kàddu yi sàkkuteef ci maire Abdou Lahad Ka ngir mu bàyyi leen ci xel bu déwénee ci ñetti fan ci weeru novembre ci atum 2022 soxna Abi Kane. man moom dama d'accord waaw d'accord waaw yilif ñu làkk moo yilif ndax moo moom Touba kon lu dëkk Touba moo ko moom d'accord loolu moom d'accord li jëndeetuñu sees waaw li jëndeetuñu sees li jëndeetuñu ndox li jëndeetuñu base zéronisation loolu heure bu la 3 décembre jotatee yéen la fa ñi suñuy hôtesse sax nañ xool lu ñu neex ñu wax ko monsieur le maire mu xotti ko ñu dem toog lekkal ko leer na jeex na loolu lañ wax na ko dee jërëjëf jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi seen mbokk mbokk mbokk yi Mor Fall Mbaye loo leen fii ci Touba ñetti fan ci weeru novembre ci atum 2022 jërë ngeen jëf ñaan boobu nga wax nag ñu ñu ñaanal leen ko ñoo leen koy ñaanal ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke borom tuuba jéego yi ngeen fi ñëwee ak yéene yi ngeen fi ñëwee ak jéego yu ngeen di delloo yal leen ko yàlla defal iman ihsaan ngërëmal yàlla ngërëmal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngërëmal cheikhul xadim ak mujj gu rafet yalla sam len sam sen njabot barkel len barkel sen njabot def ci yeen njeriñ def ci sen njabot njeriñ te njeriñ lepp yalla bu mu genn njeriñal l'islam ci daraje sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kontan nañu trop ndax li li daf ñuy sigil daf ñuy